waaw très bien ñu ñu ñu dem ci. y' a tous ces problèmes même même les candidats yi nga xam ne jàll nañu. Mm-hmm. ils ne en sécurité. Mm-hmm. ils ne sont pas en sécurité. d'accord Mayoro dinañ ci ñëwaat ñu ñu ñu jox la parole euh, honorable euh, par rapport ak. parce que amuñu benn garantie de toute façon euh, bu fekkee ne mbir yi nii la demee duñu dem élection dañu stopper le processus est-ce que aujourd'hui yow jàpp nga ne loolu lu war a mën a nekk la. ma xam nga man moom dama foog ne dëkk. ci loi lay dox toujours et suñ ma laajee ndax report élection mun na am damay xool ndax am na légalement yoon buñ mun a jaar pour reporter élection seet naa ko gisuma ko bu ko nit gisee nag mun na ma ko woon mais man gisuma fuñ mun a jaar légalement pour reporter élection xam lu tax mm-hmm. parce que dañ ne le mandat du président de la république est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ñun ñoo ko xeexam après ñun ñoo bëgg a yokk mandat président de la république ce n'est pas possible c'est constitutionnalisé et inscrit dans une clause d'éternité mais, mais, mais, c'est-à-dire aujourd'hui reporter les élections mm-hmm. donner la possibilité au président de la république de reporter les élections c'est lui dire que tu peux vous pouvez allonger votre mandat. mais est-ce que mën nañ dem élection ak ce processus là tamit Théodore. parce que nu ngeen bëgg ñu def. mais Théodore un processus. je le processus n'est pas biaisé. ak tous ces quoi ah le processus n'est pas biaisé. il faut qu'on s'entende. le processus n'est pas biaisé. Ah ah on est allé avec tout un processus en hmm. toute connaissance des règles régissant ce processus. mais li xaw euh, li xaw. je vais je vais terminer ci loolu laay ñëw oui loolu laay ñëw. cest à a dit que le conseil constitutionnel qui met en place une commission chargée de contrôler le parrainage. Encore hmm. une fois, il faut faire la différence entre la commission chargée de vérifier les parrainages et le conseil. La commission, c'était pas le conseil. Mm. Et quand ils ont fini le travail, la commission a été dissoute. Les membres du conseil sont, en, sont, les, sont majoritaires dans cette commission. Pourquoi les politiques, sachant que le Conseil n'a aucune capacité technique de vérifier des parrainages, ont laissé ça ñoom it am nañ ci part de responsabilité. ñu ne que cette vérification sera faite par un logiciel développé par les informaticiens du conseil. bi ñu paramétrer pourquoi les politiques. Mm. n'ont pas demandé à émuler ce. ça ça aussi c'est vrai même Google qui est l'un des plus grands moteurs de recherche est émulé tout le temps et mise à jour. c'est vrai ça veut dire que mun na def ay erreurs mun na def ay bëgg. absolument. ma ñëw maintenant sur les dysfonctionnements techniques parce que bu ñu defoon. bu ñu émulé woon logiciel bi dem xool lan lay bañ ak lan lay bugg dinañ xam ne que espace sax boo ko bàyyee ci benn écriture day dem dans le code aski xool lan la correspondre mu yokkal la ko ci parce que toi tu amènes un fichier Excel fichier Excel boobu bu ñu koy transférer dafay dem sous forme ce qu'on appelle euh, une version euh, euh, un fichier portable CSV lay demee CSV point virgule la xam tabulation ak virgule loolu mooy ay séparation yi boo defee espace espace boobu day dem dans le code ASCII de l'ordinateur mu xool ban caractère lay correspond bu dee A mu dugalal la A bu dee B la mu yokkal. <laughs> lay wax cest logiciel bi kan lay kan parti politique il est impacté. Mm -hmm. coalition il est impacté donc c'est aux partis politiques et aux coalitions d'exiger mais quand on allait aux élections législatives en en mille vingt deux en deux mille vingt le logiciel a été testé de la DG. E. mais bi kenn testé wu ko. il a été testé parce que les gens ont exigé à le tester. Mm. ils ont été formés sur le logiciel. man quand on vérifiait le parrainage de Aar Sénégal ma toogoon ci bi. Mhm. je savais déjà comment le logiciel fonctionnait. bu ñëwee ci euh, neuf cent mille. parrain non non ñu ne non identifié waaw moom la gis nga euh, personne non identifiée au fichier général mm-hmm. nous on en avait 412 yëpp laa vérifié mm-hmm. pour xool ndax ils sont présents dans le fichier ak lu tax logiciel bi ne non identifié 412 yëpp ñun ñoo def erreur ah oui ouais dafa am ñoo xam ne par exemple ils votent dans la diaspora ñu dugal leen ci benn région le logiciel il vérifie par région boo dugalee faatu ab du vote à dans la région de Dakar ah mu xool yow nga dugal ko région de la bu xoolee du gis Fatou Abdou même si elle est présente dans le fichier du ko seet feneen région bi nga ko jox rek la koy seet par exemple en-tête en-tête fichier bi boo ci deful turu région bi boo ci deful turu région bi day dindi kii yooyu yëpp sànni leen parrain yooyu yëpp sànni leen donc il mais mais bu ñu la déggee comme si l'administration l'administration euh, euh, bi nga xam ne ñoom ñoo organisé amuñu benn faute bu ñu def tout. non waxuma ne amuñ benn faute bu ñu def dama ne. dama ne booy dem ci jongante. Mhm. te nga xam te nga xam ne ki nga ko séqal du la may dara. Mhm. da ngay jël say matuwaay. oui mais mais mbër mi janoo mbër mi janoo day tëdd di bëre. n'empêche aujourd'hui yegsi nañu foo xamante ne Mayoro wax na ne le processus ñoom loolu la ñu jàpp que ne processus bi baaxul ni ñu ko defee jaarul yoon et que yegg nañu foo xam ne y a des accusations de fraude et de corruption on a aucun moyen on a aucun moyen légal mhm. d'arrêter le processus électoral y en a pas Ah oui, amul avec tout ce qui se passe. amul y en a pas. c'est-à-dire à moins que ñu décider nous tous les Sénégalais de déchirer notre constitution. et de dire qu'on ne va pas aux élections. lu muy nuru. yow tey da nga am ay gan nga am xar boo xam ne yaa ngi ko yeewoon ci ginnaaw nga bëgg ko gan yi nekk ne xar bi dee na yaa deux jours nga ñëw nga ne mais dee na mais terul dama koy toggal gan yi. non non non xar bi mais terul da koy. <laughs> toggal gan non allégorie boobu baaxul. Ah, non non non man boobu laa <laughs> man man boobu laa moom xar bi dee na ba commencé yàqu mais dañ leen koy toggal. Ah, alors honorable bu ci yow parce que dañuy teg rek amaan na ay hypothèses. parce que mhm. kenn xamagul lan mooy tukkee ci la nga xam ne mooy commission commission d'enquête bi nga wax ne au minimum dina def fukki fan ak juróom suñ ci yeggee dem en pleine campagne parce que mi ngi wax ne kenn du campagne mais le 3 bu jotee est que ñoom mën nañu taxe kenn campagne maintenant bu ñu demee ci non waxuma kenn du campagne ah ne est que mën nañu campagne dem ci ah, campagne sama Karim Wade et les voilà loolu laa wax mais newuma kenn du campagne dama ne ñun dañu jàpp ne fii alors sénégalais yi seen xel bu dellusee ñu wax ko fañ ko war a waxe ah dinañ gis ne que ni Sénégal mi ngi dund situation boo xam ne crise institutionnelle am na. très bien ndax xeex bi am diggante assemblée ak conseil constitutionnel mais ñaari pouvoir la. ñetti mm-hmm. pouvoir a fi am. tout à fait ci exécutif bi. xamoo mi ngi taxaw taxawaayam. kon crise institutionnelle am na je termine fi ma nekkoon ak honorable hmm. bu ñu yeggee foofu ba campagne bi commencé euh, conseil constitutionnel wala commission d'enquête parlementaire ñoom ñu teg enquête ami preuve que la ñuy tuumaal loolu lu am la naka lay demee bu boobaa moo bon su fekkee ne euh, euh, assemblée dafa génne rapport am mm-hmm. ñu constater que les accusations sont avérées. Mm-hmm. L'Assemblée n'est pas le juge. Il va rendre public ou ne pas rendre public, comme je vous ai dit. S'il rend public, le, procureur peut, peut saisir. Euh, ou bien le ministre de la Justice peut lui Moi demander de se saisir, mhm. Mhm. ou bien même les demandeurs peuvent sur la base de la commission d'enquête parlementaire, saisir le procureur. Mhm. À partir de ce moment, le Conseil constitutionnel le le euh, nu ñu le conseil constitutionnel va se prononcer comme ni ko assemblée di defee parce que article 93 daf ne dem la justice c'est le conseil constitutionnel qui donne son autorisation. Si des plaies flagrantes, mm-hmm. le Conseil n'a pas pour vocation d'être un frein à